asalaamaaleykum man professeur Moussa Seydi man maay wax ak yéen tey ñu bëri dañ ma woo dañ ma laaj ci mbiru lunette yi ma wax ci émission boo xam ne maa ngi ko doon def ci benn télévision ak benn rajo lunette yi ñi koy soxla mooy ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñi nga xam ne dañoo feebar di saqat walla di tisooli te même su boobaa lunette yi ñu soxla dëgg-dëgg ay lunette spéciale la lu ñuy wax lunette de protection kooku ñëpp mënuñ ko am waaye ci contexte bii ñu nekk nga xam ne contexte port de masque généralisé la lunette yi normalement sax suñ toppee li ñuy digale kenn du ko soxla parce que képp kuy saqar walla di tisooli même soo feebaree ci masque bi lay yem kon du mën a dem ci bëtu keneen may profité ci leeral bi nag di wax ne comme jàngoro bi dafay jaar ci bët yi di jaar si bakkan bi di jaar si gémmiñ gi su fekkee wóoruñu ne suñ loxo set na nañ moytu jël suñu loxo di ko teg suñuy bët wala suñuy bakkan wala suñuy gémmiñ nañ raxasu toujours ak saabu moo gën lépp suñ ko mënul ñu utiliser solution hydroalcoolique balaa ñuy laal suñu kanam jërë ngeen jëf